Euh, lu xaw a métti la daal parce que bu demee ba euh, président di séparé wu ak ministre am wala bu demee ba ministre am di gedd maanaam problème am na problème la boo xam ni li tax mu métti mooy moom mi nekk ministre président moo ko tànn ci biir treize million de sénégalais seppi ko ne ko yow laa óolu dénk naa la lii man mi la dénk nag li ma la dénk. dafa am nu la ko sante ne la ni la ko denké ndax gis na fi ki jëluma ko gis na fi ki jëluma ko gis na fi am na yaakar ci yow ak luma bëgg ci yow boko nangoo da ngay cey dem na ma la ko sante légui nak comme sant nga mëna denk na la bo gisé lo xamné safan la nga ne ma ah kilifa gi kat li safan la suñ ko défé won ni suñ ko défé ni suñ ko défé ni man mi la tan maa la ëpp information la xam xam loo xamut lu mu la munta wax kon su ma la waxee ne waaw dégg naa li nga wax waaye bàyyil defal nii da ko war def wala nga dem kon jàpp naa ne ministre waru la contredire ba am jafe-jafe ak premier ministre am ci liir ba xaw a yàgg wala ak président parce que li premier ministre xam ministre xam ko li président xam ministre xam ko kon yow mën ngaa jàpp ne xaj na lii lu baax la fekk na xaj na baax na waaye boo ko seppee lay baax mais boo ko boolee ci groupe bi yëpp xaj na mu nekk loo xam ne euh, safaan la beneen bi mooy d'après li information yi wax ci journaux yi dañu wax ne moom dafa bëggoon Total fay lu gën a seer que ñi fi nekk déjà mooy Cosmos et que dem na ba sax Total góorgóorlu nañ yokk tuuti waaye lam yokk daal ba tey xeeb na ko ñu ne ko waaw signeel mu ne moom du signé comme su fekkoon ne waa ji daal li mu fay dafa tuuteeg moom trop am na ñu wax loolu ñi ànd ak moom wax nañ ne loolu la am na ñeneen ñu wax ne dafa bëggoon a jël yëpp jox ko benn société boo xam ne moo fi nekk déjà bu tudd Cosmos pour que kooku continuer di liggéey liggéey bi moom kenn ah li am ba am mooy su fekkente ne bi moom ci boppam gis na ne ñi nga xam ne ñoom ñooy total li ñu fay dafa tuuti mu négocier ak ñoom pour ñu yokk. ñi li total dinañ fay lu tuuti xam nga lutax cosmos dafa dem ba gas ba gis ne pétrole amna. mom lu wóor ko ne pétrole amna kon koku lim paré fay mo gëna assuré que ki nga xam ne man kat dégg naa ne fii am na xaaral ma essayé fii ba xam ndax am na du mën fay li ki nga xam ne dem naa wër na ma ne fii am di fay parce que bokkuñ situation ndax affaire pétrole da ngay def say milliards mën ngaa bañ gis pétrole kon total na li Cosmos di fay ndax Cosmos gis na ba pare waaye tam ci pétrole euh, pour dugg rek parce que tam ni affaire bi dox signé contrat bi socio-économiques investissement yi nga la responsabilité sociale protection de l'environnement bari yoo xam ni du question kii mu fay lu gën a seer rek moom nga ko war a jox nit mun na fay lu gën a néew sax fekk na la muy indil réew mi moo ëpp ki nga xam ne fay na lu gën a seer kon loolu ci itam dañ koy jël en moo tax ñun dañ wax ne ak lu mun munti xew nañ bàyyi xel nañ defendre intérêt Sénégal intérêt population Sénégal ndax mun ngaa signer ak nit tey jii signature boo xam ne li muy génne moo gën a seer fekk na du intérêt Sénégal mun ngaa signé koo xam ne commencement bi li muy signé moo gën a néew fekk na la ngay xam ne moo bokk ci signature yi moo gën a nekk intérêt Sénégal kon kenn mënul basé wu rek ci ne kii li mu fay dafa tuuti moo tax duma ko jox mbir mi parce que li gën a am solo mooy mbirum pétrole contrat la yoo xam ne da nga ca war a laaj yu bari yu ciy ànd yoo xam ne day soqali réew donc kon jàpp nañ ne daal ñun suñ suñ gis-gis daal waruloon na. bañ a def li ko kilifaam wax. est-ce que loolu dañ ci dañ ci mën a jàngat ni moom dogu gi mu dogoon ne du xaatim euh, yooyu la euh, charte yi lëkkale au total ak Sénégal ngir ñu mën a euh, jëfandikoo pétrole boobu ndax jàpp ci ne moom taxawaayam dafa firndeel ne am na lu ci ñemental ci wàllu Cosmos parce que moom dafa mel ni que Cosmos lay gën a xëccal. waaw xam nga xam nga dafa am ñaari version dafa am ñoo xam dañ ne kii dafa bëgg a xëccal Cosmos. am ñu ne moom dafa jàpp ne kële lim fay dafa néew dans tous les cas bañ bam bañ lank gam lank am na lu sabab ak lu ko munti sabab ki nga xam ne moom mooy sa kilifa tànn la yow ne la li yow laa ci olu liggéeyal ma ko nii nga gis ne xaj na nii baaxul nga ne ko nii laa la proposé mu ne waaw dégg naa la waaye defeel ma nii da ngay def nam la wax ndax moom xam na loo xamut mën na loo mënut ndax moom mën na laa jël mën na laa dindi xamna na xamul ndax xamna na lum am na lum xam ba tax mu nek president fam nek poste président xam-xam tamit loolu fekkee moom nemmeeku na ne tamit ñële lañ nara joxe wa total lañ nara joxe dafa new néew boo xamante man indi loraange askan ndax tamit du taxawaayam duñ ko rafetlu déggoo li ma la wax neena la du affaire joxe bi rek mo yore contrat ndax nit mun na la jox 100 francs tay ba paré bu ngeen signé contrat ca dem ba chaque chaque année mu lay jox 50 francs comme nit mun na la jox 1000 francs chaque année mu lay jox 10 francs borom 50 francs mo moo ëppale moo ëpp ëpp njëriñ borom 1000 francs bi joxe léegi kon du question kii la mu joxee rek déedéet dafa am lu bari yoo xam ne yu koy jël en compte boo yoree réew da ngay jël en considération élément yu bari yoo xam ne ñu bari dinañ wax naan kii lu tax mu def lii fekk ne ñoom fañ toll ci seen niveau d'information moo tax ñu ne kii li tax mu def lii waaye yow ma xam la ca biir xam la nekk ca ginnaaw xam lu tax nga jël lii damay joxe benn exemple am na benn temps fii ci Sénégal suñ gouvernement signé woon na fii temps yi wàdd la woon ak benn société ñu dem ba ci digg bi ñu gis koo xam ne moo ëpp ëpp njëriñ ñu ne kii yow annulé nañ sa bos kooku ne dama leen di porté plainte ñu ne d'accord ñu dem jël keneen jàpp nañ ne même bu leen waa ji porter plainte la ñuy fay moo gën a arrangé wu contrat bu bees bañ nar a am ndax xaj na bañ signé contrat nañ ko signé woon baaxul kon loolu yëpp <clears throat> day am état da amul ay xarit ay intérêt la am gis nga amul benn réew buy démbale benn réew ci comme ça amul état yëpp dafa am nu ñuy fonctionner ak lu ñuy dox léegi nag lii nga xam ne moom la nit ñi di gis ñii nii nga xam ne nit simple yi comme man ak ñeneen ñi li ñu gis bokkul ak li nga xam ne ka nekk ca jalba loolu lay gis ndax bari na ay décision yoo xam ne lu koy waral fu sori lay jóge kon yow jàpp nga ne taxawaay tey gouvernement bi ngir Total mën a bokk ci euh, làmb ji moo gën a mën a jur njëriñ ñeel askan bi. waaw ndax boo jëlee say nen yëpp def ko ci benn pañe bu pañe ba tojee nga am jafe-jafe bu fekkee yëpp lañ jël moom jox ko ko mais bu amee jafe wala bu déggootut ak ñun bañ am jafe eh, kon dañuy am problème ndax dañuy taxaw mais boo jëlee ñu bari jox leen ku ci am jafe-jafe keneen ki continuer di doxal kon kay. Euh, Euh, logique ci boppam dafa wax ne bul jël kenn rek jox ko lépp ak même lu mu fay fay lu seer ndax départ lañ nekk rek départ guñ sax gars yi dañu wax ne gis nañ mais départ guñ exploitation te loolu yëpp dañ ko war a jël en considération lan la signature contrat bi war a mën a indil Sénégalais yi lan la mën a yokk ci seen koom-koom donc du dugg bi rek ubbil naa la dugg nga waaye boo duggee loo fay def. ndax danga nga fay fecc pecc yaaba wala ndax danga nga fay fecc pecc moo xam ne da nga yàq géew ba lan ngay def boo duggee loolu des na ci ñu dem ak ñoom ba ci digg bi kon du njëkk di question ne la la kii fay moo gën a seer rek et kon moom nañuy war a jox contrat bi. voilà contrat boobu tamit mu nekk loo xam ne lu am solo la. Mhm. tamit jeexi jaaxa ci xelu askan bi ndax tamit yàgg nañu di signé ay contrat yi ni mel mu war a jëlee askanu Sénégal mais ci mujjanteel nga. lañ ciy gis mooy que ne finalement euh, Sénégal yi moom du ci jëriñoo dara ban taxawaay tey lañ war a am ci loolu donte sax gouvernement bi amal na benn kuréel boo xam ne COS lañ tuddee maanaam buy veiller à ce que contrat gën a baax wala tamit euh, exploitation yi gën a baax mais dëgg-dëgg nan lañ ci war a doxee ba nga xamante ni Sénégal yi moom dina ci mën a yëg boppam santé boppam. ñun nee ñun nee nañ li ñu amal solo mm. mooy lépp lu état di def ci turu population yi ci turu réew mi na. nekk ne lañ jiital mooy intérêt réew mi intérêt askan wi loolu moo tax ñu jàpp ne comme teg nañ comité boo xam ne ay ñu xarañ ci loolu nga xam ne loolu ay spécialiste lañ ci ñu ne leen dénk nañ leen fi Sénégal war a jëm su fekkee ñun fii lañ bëgg mu jëm te foofu ñu jëm baaxul ngeen nañu fii baaxul su ngeen jàppee ne fii lañ war a jëm ngeen jàpp ne fii lañ war a jëm ndax am ngeen xam-xam yoo xam ne ñun amuñ ko looloo tax ñu am yaakaar ne comme teg nañ comité bu mel noonu ñoom la ñuy génnee la meññi intérêt réew mi lay doon ndax du benn nit ndax ñu bari la ñoo xam ne seen xarala dafa màcc ci mbir mi te jàpp nañ ne suñ liggéeyee dinañ liggéeyal Sénégal. mais askan dëgg la mën nañ ci rafet mais askan seen tey tamit war na mën a am ay pexe yoo xamante ni euh, dina ko doxee wala dina ko jëfee ba mën a tamit di. Euh, waaw ñun li ñu wax mooy. di di alerte saa su nekk. exactement ñun wax nañ gouvernement wax nañ état neleen mm. lépp loo xam ne yéen koy def mu jëm ci mbirum pétrole bi contrat yi nañ koy defee ña ngeen di tànn ñu ciy bokk na nekk loo xam ne liy jiitu ak liy mujj mooy intérêt population yi bu ñuy signé tam ñu fexe ba signé loo xam ne à côté li nga xamante ne bii moom mooy contrat bi pur et dur mu am yeneen i wàccuwaay yeneen i retombées xam nga tey ji dégg nañ total mu wax ne moom dina bokk ci ñi nga xam ne ñooy ëppale lu ñuy dugal ci université pétrole bi ñu nar a tabax fii xam nga loolu bokkul ci contrat bi waaye ay retombé la léegi nag ki nga xam ne dafa signé defal la retombé bu mel noonu yooyu intérêt askan wi la dëgg ndax lu tax ndax bu fekkee def nañ fi université boo xam ne mu ngi jàngal suñuy doom yi ñu nekk màgg di liggéey ci li nga xamante ne bii moom mooy pétrole bi mais réew mi kooku ngi ci réew mi lay jóge lay dugg moo gën koo xam ne beneen rëkk la jógee jàng pétrole ñoo ñu koy fay mu mu yóbbu bitim réew kon yooyu yëpp ci retombées yi la bokk jàpp nañ ne nekk na loo xam ne lu am solo la loo xam ne à côté contrat bi pur et dur war nañoo mën a fexe muy am ay réussite yoo xam ne day jëm ci askan wi. leneen tamit lu lëmb xel lëmbee xel woo askan wi rawatina ñu dëkkee ci gox yi nga xam foofu la ñu war a euh, exploiter loolu di pétrole bi fu ci mel ni Bargny ak Saint-Louis wala tamit Rufisque. Mhm. ñoom sax xam ni am nañ ci euh, for nañ ci réew bay ñu ne ñoom euh, daal euh, am nañ daal ak njàq rek ci wàllu nga xamante ni seen nekkin loolu exploitation boobu mën na ci indi jafe-jafe ñu koy wax wàllu environnement bi. Mhm. loolu lan ci mën a àddu ngir. waaw xam nga mbirum pétrole dafa nekk loo xam ne dafa évoluer ni ñu koy liggéeyee. ndax bu njëkk daan na am xëy na lu gën a bari ci ay jafe-jafe. Mhm. kenn mënut a wax nag ne jafe-jafe du am mais léegi normes yi maanaam tëralin yi. Mhm. dafa tek ay sart ak ay sas yu diis ñi nga xam ne ñooy exploiter pétrole ndaam sax boo koy xool pétrole ba ca digg géej lañ koy exploiter waaye war nañ respecter ay normes ba nga xam ne pétrole ba du yàq jën yeeg euh, yi nga xam ne ñoo nekk ci biir géej gi koy napp wala di ko jëfandikoo loolu bokk na ci bokk na ci tamit ni euh, nga xam ne moom la ñuy liggéeyee pétrole boobu ñu fexe tamit ba bu laal population yi ci dara kon loolu yëpp mi ngi ci contrat yi ndax nu adina di gëna dem kanam ñuy gëna euh, bayyi xel alam bi di gëna bayyi xel doomi adama yi nga xamne ñom ñi nekk ci condition yoy kon ñom nañ dalal seen xel ndax nañ xamne ni ñi exploiter pétrole euh, dafa nekk légui ci adina bi no xamne amna ay façon yin yo xamne ñepp ko xawal nu nuróole ci li nga xamne mo jëm ci mbir mi ndax amna fo xamne bo fa tolo bo defé yenn dégâts noo def sax euh, communauté internationale mooy dal sa ko kon nañ jàpp ne euh, nañ la maanaam nañuy bàyyi xel di bi si ñu bët di xool waaye nañ am yaakaar ne jafe-jafe buy am itamit nday nekk jéyee joo xam ne xëy na kenn mënu ci dara wala dara mais ci li gën a am solo mooy nañ fexe ba contrat yi muy respecté tëralin yi nga xam ne moom mooy tëralin yi nga xam ne moom la àddina bi tëral ci mbirum environnement. du tere tamit ñu sàkk ñu jël ay matuwaay yoo xamante exactement exactement loolu la ñu wax état bi.